سلالي إلى الجنات باح توسعت وكلي ومالي سان خام مسسس mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana sëriñ Masamba Kandi radiyallahu taala anhu mas naa wax ab taalibeem bu ñuy wax Ahmadu Joom ne ko basiiru mii nañu ko yóbbu ca sëriñ tuuba xaadala wallaaxumma maxtaaralahoo mu ñaanal ko ba mu ko fabee ba yegsi ci sëriñ bi wàcce ko ne ko sëriñ ma sàmba kanni radiyallahu taala nee na ñu dolli ko ñaan ndax dañu koy bëgg a yóbbu ca nijaayam sëriñ moor penda mu jàngal ko alxuraan sëriñ bi ne ko ba ngeen tollee nii la sama xel dem ca sire bi ko sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaara loxo di ñaanal bi mu tegee loxoom ci boppam daa sedd lool ba yaramam wépp di ko yëg ñaan nga nangu lool ba nga xam ne bi mu mokkalee alxuraan téere ba mu doon jànge këyit wu ci nekk xam na fa xatwa tàmbalee ak fa mu yem siiw na loolu mooy barkeb sëriñ tuuba xaadala wallaahu kii nag day doomi sëriñ sireloo radiyallahu taala anhu moo tax sëriñ Tuuba xaadala wallaahu maxtaaralahu di wax loolu wallaahu aalam bi sëriñ bi de sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal